Euh, gis ngeen ci li Caritas yi jot wone euh, maanaam ay jëfin yu bees yoo xam ne Caritas daf koy jéem ak euh, population yi ndax indi saafara ci ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñi dañ leen di jànkonteel maanaam ci mën a am ndox boo dundee wala boo mën a liggéeyee alors ñun Caritas dañoo taxawal. Nous ngi koy observatoire maanaam foo observatoire des services de l'eau Madame, dañoo taxawal kuréel politique état du Sénégal ci wàllu parce que ndox dafa bokk ci euh, ak Vous doomu nit ku ne war nga mën am ndox ndax nga ci alors dañoo seetlu ne ci réforme bi ñu taxawal at yi passé réforme de l'OFOR ñun forage yi ñu liggéeyoon ñun Caritas te dënk leen population yi ñu di leen di gérer ci maanaam ay kuréel yu ñoo tuddee ASUFOR forage yooyu ay privé ñoo leen war a gérer donc population yi amatuñ ci loxo loolu nag doon loo xam ne jaaxal nañu parce que ñun Caritas li tax ñu jóg mooy fexe

kuréel boobu de tous les observatoires des services de l'eau